léegi ci loolu la nit ki di amee sécurité boobu ci ne mënuñ laa xoqatal indil la insécurité alladina qaala lahum nnaasu inna annaasa qad jamacu lakum faxshawhum fa zaadahum imaanan wa qaalu xasbuna allahu wa nicma alwakil loolu mooy li ngëm yàlla di def ci nit xoolal bu baax ni ko yàlla waxee nee na nit ñi dañoo dajaloo ne leen nit ñi nit ñooñu kenn ku ci nekk am na kuñ ci namm nit ñi dañoo dajaloo ne leen Quraysh ñi ngi dajaloo dajale ay kuréel yu rëy di ñëw ci yéen na ngeen tiit na ngeen moytandiku ndax la ñu dajale ci mbooloo bari na te buñ dalee seen kaw dañu leen gaañ kon loolu lu war a tiital nit la lu ko war a jaaxal mais lan la leen def fa zaadahum la yàlla wax lan balaa dara xew ngëm yàlla gi ngëm yàlla gi nga xam ne mooy indi dal gi di indi sécurité bi la yàlla wax ne facteur boobu nga xam ne facteur u insécurité la facteur u tiit la lu war a tiit loola daf leen a yokk ñoom ngëm yàlla ñu gën a am kóolute ci yàlla soog a sax di wax ne xasbuna allah wa niamal wakil doyloo nañ yàlla te yàlla mooy ki gën ci koo xamante ni moom la ñu wakkirlu ci moom yàlla nee na loolu bañ ko defee loolu dafa tax lépp loo xam ne lu ñu waroon a ragal la yàlla fànqal leen ko lépp lu ñu waroon a ragal rek yàlla dàqal leen ko leneen li ci toppaat mooy ci njeexital bi li yàlla wax li tax nit ki war a am taxawaay yu mel noonu مولي الله انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافوني موي شيطان يمي ديف جل اي غاوام يو خام دالين دي نغيم دور سي كاو جوليت ني بور دي لين تيتال يور سين خابر خابر جو بري اك تيو لو بري ييكتي بند بو بري بور ريان دي تو مي لول سي جوست بور دستابلزي ني يالله با دال گي ني ورا اندال تي ci jëfe seen diine ci jàng seen diine ci dimbali seen diine duñ ko def waxul ne seytaane mooy ñëw di leen tiital mais def ne seytaane moo leen di tiital loo gaawam yi ñaari wax yooyu bokkul seytaane mi ngi fi xam nañ ko du ñëwal boppam di leen tiital naan nañ ko ragal déedéet mais day ngem ba ay gaawam di leen wane ci façon boo xam ni dafay bëgg nit ñi ragal ñooña moom mu liggéeyee ci ñoom lu mu yàqalee nit ñi lu baax lañ nekk innama dalikum sheytaanu yuxawifu awliyaahu ay yuxawifukum awliyaahu daf leen di ragalloo gaawam yi wa kadalika jaalna li kulli nabiyin aduwan shayatin al insi wal jinne jooju yàlla doon wax mooy ñooñu nga xamante ne bi ñooñu ñooy àndandoowu cheytaane yi tem leen di jëfandikoo ngir dóor leen ci kaw ñu gëm yàlla yàlla ne nag falaa taxaafuhum wa xaafuun in kuntum muminin bu dee ngëm yàlla gi mi ngi ci yéen jariñ leen lim leen war a jariñ xaw fu waru fee am am na moo war a am muy ragal du fi nekk bu len len ragal ragal len ma man yàlla ragal gi ngeen may ragal moy tax ragal ñoña du am place ci seen xol ndax ñaari mbir la yu nekk en contradiction te wama jaala allahu li rajulin min qalbayn fi jawfi yàlla defalul nit ñaari xol ci dënam ben xol la fi def te xol dafa fiir ta bokk jappando ñaari mbir yu nekk yu safano li naan on peut pas vouloir une chose et son contraire lolu moy li ci am moy ne bu ragal yàlla deug nekk ci xolu nit ki ragal ñoñu nga xamne ay tawaghit lañ di awliyaawu seytaane yi di gaaw seytaane yi mënatu fi am place loolu la gor gi doon wax timit ba légui nan al qalbu ida mtalaa bi shay'in lam yabqa fihi muttasaun li ghayrihi xol bu ca dara newe ba fees ca ba deugar ci am ca place loola dootu fa bàyyeeti wala xol ba dootu fa bàyyeeti place ngir leneen di fa ñëwati di fa installé wu loola moo cay nekk kon loolu la yàlla di wax ne fala taxaafuhum wa xaafuni in kuntum muminin benen bi ci dessat tamit moy dal ak sécurité bi mi indil nit ki ci gëm bi mi gëm ne mbiram ci loxo yàlla la nek kenn mënu ko lor wala nga jarign ko ci luddul lo xamné yàlla mi mu gëm moko dogal ci mom ma asaba min musibatin fil l ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha moy ne lépp lu dal rek ci doomu adama yi ci ay nattu yu len yàlla di dogal ci ñom fekkon na yàlla bind ko ba noppi kon lépp lu ñu dal wa ma asaabakum yawma altaqal jamaani fa bi idnillah فبإذن الله موين لب لو خمنتني دال نورك رك تي الله سبحانه وتعالى لا جوغي لب لو دال رك قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا ولا ليك نيت كي بوغامي لي يونت عليه السلام خون عبد الله بن عباس لو ان الامه اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء على ان يضروك بشيء فلم كوخ لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف ci yenn riwaayat mu ne jaffal qalamu bi ma huwa kaa'in la yàlla bindoon bind na ko ba mbind ma fer kenn dootu ca dolleeti naam kenn dootu ca dolleeti mooy la nekk fa yàlla subhanahu wa taala yamxu llahu ma yashaa wa yuthbit wa indahu ummul kitab loola kenn du ca yokk kenn du ca wàññi li ñu yokk ko wàññi mooy li nekk ci loxo malaaka yi tey wàcc ci laylatul qadr loolu la ñuy yokk ko wàññi waaye la nekk ca looxul mahfuz dara du ca yokk léegi nit ki bu gëmee loolu nga xamante ni moom loolu da koo gëm yaqinan loolu da koy dimbali ci mu am ben paix intérieure ci yi jankontel ci aduna bi ndax xamna fi mi jóge xamna liko waral liñ nane mbir boo bo xamé liko waral rek mu nek mu nexe dekk mbir bo xamé liko waral rek mu nexe dekk dékku nit def dara nga ñak ko mëna supporter fek xamul li tax mu def ko mais buñ ñu expliquer nga ne ah wa wa wa léegi comprendre na affaire bi leer sa bop nga comprendre ko dem mais ñak xam bobu lutax bobu boobu moy problème te loolu la yéfer bi di di sonn fii ci aduna moy lu ko dal xamul lutax mu dal ko lu ko dal rek jàpp na ni injustice la gisal yéefar bu nattu dal nga seetlu xool xool ni mu koy dundee addunaam yépp ay tukki ku ci do yàlla nattu doomam doomam ju buggoon loolu gaañu da koy jooy ba bu muy faatu da ngay gis ñoo xam dañ koy jooy ba am ci ay problème cardiaque ñoom seen bopp mujj faatu ndax amuñu lenn lu mën a apaiser seen souffrance boobu ndax yow jullit bi yaa ngi naan yàlla yàlla bëgg nga ko yàlla foor na ci yow ba àgg ci yow foo xam ni loo bëgg bëgg bëgg bëgg sa boobu yàlla moo la ko gënal te xam nga ne yàlla moo la ko joxoon inna lillahi ma axada wa lahu ma aata wa kullu cheyin indahu bi ajrin musamma nga xam ne yàlla moo la ko joxoon yàlla moo ko jëlaat doo injustice ci sa xol ñàkk a yëg injustice boobu yëguloo dañ la togn mais da nga yek ne borom yëf yi la ko joxoon moo ko dina metti ci yow naam mais di ko meuna supporter mais ki nga xam ne nag moom xamul lolu koku mo koy souffrir souffrance bo xam ni subhanallah moo tax yonente bi alayhi salaam ne inna ajaban li amri almumin fa inna amrahu kullahu xayr yéemu naa wala wares naa mën a yéemu ci mbiru ku gëm yàlla mu jëfandikoo baatu mu'min bi nga xam ne fa la meñal imaan buy wane ne li waral jëf yooyu wala li waral anam yooyu mooy ngëm yàlla gi moo ko waral bi mu waxee ne mbiru ku gëm yàlla yéeme na li muy tekki mooy mbiram moom la ca yéeme li ko def mooy ngëm yàlla gi mu gëm yàlla kon ngëm yàlla gi moo jeexital ci moom loolu mu ne mbiram lépp yiw la bu ko lu neex dalee day sant delloo ko ci yàlla mooy ñàkk a gis bi muy ñàkk gis boppam ci li muy am ci ay xéewal bu ko defee mu nekk yiw bu ko lu naqari dalee mu muñ ko mu daal di nekkaat yiw nee na loolu walaysa dalika illa lil mumin mu ne loolu ku gëm yàlla rek am imaan rek moo mën a am loolu particularité boo xam ñi gëm yàlla rek ñoo ko mën a am kon loolu benn force la bu yàlla def ci ñoom boo xamante ne keneen ku dul ñoom amu ko kon yi nga xamante ne bi moom mooy nattu yi yàlla subhanahu wa taala di tekki gëm yàlla fii ci kaw suuf mu koy dékku ak xol boo xamante ne donte nag tekkiwul nag ne nit ki du am lu muy souffrir maanaam doomu aadama ci ni ko yàlla bindee dafa nekk ku bañ lu safaanoo ak bëgg-bëggam waaw inna linsaana xuliqa halua doomu aadama noonu la ko yàlla bindee tekkiwul ne boo gisee moo tax yonente bi alayhi salaam bis bi nga xamante ne bi ibrahim faatu na ñu gis ay rongoñam tuuru ñenn saxaaba yi laaj ko def ne leen innama huwa rahma yajaaluha allahu fi qalbi almumin lii nga xamante ni moom ngeen gis samay rongoñ ju tuuru yërmande la ju yàlla def ci xolu ko gëm yàlla ci ne xale bu ndaw bi faatu loolu moom moo tax samay rongoñ tuuru mais tekkiwul benn yoon nit ki daal di xaddi ci yërmande yàlla daal di saalit di yuuxoo ko xëcc ay yëre di xotti loolu daf leen ko tere woon ne leen loolu jëfi ceddo la bokkul ci lislaam bu leen ko defeti alayhi salaatu wasalaam parce que xam na ni nit ki gëm yàlla dëgg am taxawaay bu mel noonu ci li yàlla di def ci moom ci di ko teg ci ay nattu ci ay mbugal beneen ba ci des mooy nit ki nga xamante ne day dund ànd ak ngëm yàlla yaakaar gi mu yaakaar yërmande yàlla yaakaar googu muy dund li ñu tuddee espoir nga xam ne am na moom ku mu yaakaar ak lu mu yaakaar xam nga ki gëmul yàlla moom yaakaarul dara moom li muy séntu rek mooy def see propres efforts mu produiral ko ay fruits yi nga xam ne moom lay séntu mu nekk loo xamante ni lu direct la moom rapport am ak li ñu tuddee sabab dafa nekk rapport bu mécanique bu direct yow nag sa rapport ak sabab directul ndax da xam ne am na ku ñu tuddee musabab musabbib dafa lu ñu tuddee sabab am musabbib am musabbab mooy yow da ngay jëfandikoo sabab yi di sabablu mais doo sukkandiku ci sabab yi amna na keneen ku nekk ci ginnaaw sabab yi koo xam ne mooy dogal la sabab yi di jur kooku nga gëm ne dëgg-dëgg kooku mooy def kooku mooy dëgg-dëgg mooy def moo tax mu am xilaaf sax bu am baynal achaira ak ahlu sunna ci liñ tuddee taathiru sabab mooy ndax sabab day def wala du def ahlu sunna dañ gëm ne yàlla dafa def ci sabab quwa boo xamante ni kàttan goo xam ne moom lay defee mais kàttan googu yàlla moo ko ci def bu ko neexee mu dindi ko ñenn ñi di wax ne déedéet sabab du def yàlla mooy def mais yàlla day def maanaam allah subhanahu wa taala yuathir wa yaxluqu inda وجود السبب لا بالسبب جامون بسبب بي نيوي تي لا يالا دي ديف مير مي مو تومبي مو ملنا سبب بي موكو ديف مي لول سي تري كومبليكي على كل حال يوم ميغا خامني داغا گم يالا سوكانديكو لو تي سبب تي يالا غاي سوكانديكو موي وكيرلو كي نيت كي وكيرلو بوله كوك دي ديف سبب يم ورا ديف لول لان لاكوي جورال ليم كوي جورال موي بو سبب لو لام دون خار نيول لان لاي واخ ليم واخون ني استعين بالله ولا تعجز استعين بالله ولا تعجز dimbalikool yàlla te nga bañ a yow yàccaaral découragé defal li nga war a def lan la ci teg daf ne fa in asxaabaka shay'un fala taqul law anni faaltu kaana kada wa kada walakin qul qaddara allahu ma shaa faal bu la ca dara dalee ca la nga doon faggu di góorgóorlu ci lu bokkul ak la nga doon séentu bul wax ne su ma defoon nangam su ma defuloon lii su ma defoon la neel yàlla dogal na lu ko soob yàlla mom moy dogal te dogal na lu ko soob kon delol mbir mi ci yàlla lolou lañ ci déggé kon moy sabab bi nga xamni mo ngi doon sabab lu nekkul ne deug deug deug deug moy def li am waye kiko def deug moy yàlla kon lu gogu julit bi lu ci ay mbiram ci yàlla ci limi sabab lok limi ut ci aduna ak liko ci dalak yoy yep lolou daf koy defal ben jam da koy defal jam alors que ki nga xamanteni bi mom loolu ngeum yàlla googu nekul ci xolam sabab yoy problème fitna deug la ci mom motax lo ci gis dañuy jëfëndiko bépp moyen bu mëna jëfëndiko pour ag ci sen ay objectif les fins justifient les moyens ñoom loolu la wax mooy ne ñoom nu ñu nu ñu amee baax na sabab bi set na setul lijjantiwuñu ko nañ àgg ca lañ lañ bëgg rek ndax xamuñu ne am na ku nekk ci ginnaaw sabab koo xamante ni moom mooy jeexital ci loolu